occasion la pour man pour nuyu tous les internautes qui sont en train de me suivre donc je vous adore tous et puis voilà donc euh, on a pris euh, une bonne décision démb laa jël décision créer benn vent des réconciliation avec euh, les internautes pas tous ndax du ñëpp ñoo doon saaga mais particulièrement avec les pro Sonko j'ai décidé de déposer les armes pourquoi parce qu'il faut bien que quelqu'un dépose les armes et qu'on passe à autre chose parce qu'on va pas être là di nekk fii di jàppante ba kañ loolu amoon njëriñ baaxul suñu doom yi ñu seetaan parce que les enfants xale ñu ngi seetaan ñépp ñu ngi seetaan kon waxtaan bi ja réeroo amul ñàkk waxtaan rek moo am et je pense que man la pour la plupart man seen mag la ñeen yi seen la donc euh, li si ganam solo mooy euh, ñu ñu def lu rafet ñu def lu rafet pour permettre euh, àddina bi ñu ngi seetaan ñu xam Sénégal kat il y a une jeunesse réconciliée une jeunesse qui se bat pour le développement de son pays pour le développement du Sénégal loolu mu gën a am solo ah. loolu parce que soo gisee coow li coow li lan la ñuy bëgg ñun ñëpp Sénégal développé coow li coow li diaspora bi kon loolu ensemble je pense qu'on peut réussir une grande mission pour euh, l'unité de l'Afrique pour le développement du Sénégal day fekk ñu juboo man sax d'ailleurs parti politique bi ma dirigé mi ngi tudd réconciliation nationale pour l'unité africaine RNUA kon euh, war naa mën a créer benn déclic de réconciliation su ko defee xale yi ñu ñëpp ñu juboo nekk benn loolu moo gën a am solo démb j'ai appelé euh, Euh, Fatoumata Danso donc euh, après son live pour waxtaan ak moom pour waxtaan ak moom et elle m'a correctement reçu on a discuté durant pratiquement une heure trente ça s'est terminé par des éclats de rire ñu wax des solo et je lui promis euh, de de la réconcilier avec personne juboo moo baax waaw Françoise Hélène Gaye bañ Diouf ñëpp war a juboo su ko defee mu créer beneen beneen air mu créer beneen air j'irai voir Assane en prison di j'irai la j'irai le voir dinaa lam liggéente benn autorisation permis de visite madame seeti ko comme ni ma ko defoon parce que j'étais la seule femme politique qui était allée le, le le voir la dernière fois donc je vais faire la même chose j'irai le voir voilà donc su ko defee ñu ñu ñu ñu ñu ñu changer stratégie quand je dis ñu ku si nekk mën nga far fu la neex nekk mën fu la neex ku si nekk faral fu la neex waaye su desulee dara lu dul lu dul maintenant euh, entre nous mun nañu mun nañu on peut être des gens civilisés qui qui discutent mais ku nekk da ngay far fu la neex da ngay gis kenn kër boo xam ne kii day nekk PDS kii nekk PS kii nekk mais déggul dañuy bokk nekk bàyyi am déet man daal loolu laa gisee te xam naa début bi dina xaw a jafe tuuti rek mais après ñëpp ma ñëpp dinañ ma si fekk si ñëpp dinañ ma si fekk si donc j'ai de déposer les armes ku ma tooñ sa baal naa la ku ma saaga bàyyi naa la te saaga yi dinañ wàññeeku je dépose les su ko defee mu ñu on va souffler beneen beneen beneen beneen beneen air de réconciliation ñu ñëpp ñu waxtaan juboo parce que lu ñuy soxal ñu ñëpp mooy nañ ñu som d'accord kon Françoise Hélène Gaye Georgiey euh, Viviane Safi Assane Diouf euh, tout le monde ah Fatoumata Danso ñi ma si xam nag bëriwuñu bañ ba dee ah ñu ma si xam bëri mais bon je vais les appeler tous après ils vont me linker avec les autres comme ça on va régulièrement on va faire des récon séminaires comme ça ñuy daje di waxtaan daje Paris daje New York daje Japon daje Dakar daje Italie pour ñu nekk benn loolu am solo. et on fera des séminaires de formation pour certains comme ça loolu mooy projet bu am à venir c'est ça qui est important donc je vous tends la main à tous ñun ñëpp ñu juboo nekk benn. ça a surpris par de certaines personnes mais c'est la Madior coow li dafay bëri nii rek waaye sama xol bi dara ne aussi waaw sama xol bi dara ne aussi et s'il faut prendre des décisions courageuses je n'hésite pas à le faire waaw je n'hésite pas à le faire pour faire avancer les choses et pour changer les choses soo gisee tey actuellement ñoom Cissé Lo ñoom ñëpp ñuy saaga et cetera parce que tout simplement dans les réseaux sociaux dañu dem ba banaliser saaga ba actuellement ku saaga doo doo sa gêner ah su ñu bañee bëggee nag loolu bañ loolu arrêté kon ñun ñi nekk surtout les femmes les femmes ñi nekk dans les réseaux sociaux saaga warul génn seen gémmiñ saaga warutul génn seen gémmiñ quand on voit le nombre de réactions positives on peut savoir je peux pas lire tous les messages mais je vais les lire tous pour une fois donc euh, suñu paree live dinaa lire donc euh, ça ça prouve que les gens veulent en réalité veulent se réconcilier pour un Sénégal et ça c'est important ñi nga xam ne dañuy bëgg léegi nag wax ak man par Facebook live vidéo donc mun nañu def euh, benn appel vidéo et moi je vais les prendre on va discuter sans problème d'accord voilà donc je je prends aujourd'hui pas de portable mais seulement par Facebook live vidéo et ça permettra à ko bëgg a waxtaan ak man nga ñëw ñu waxtaan pour l'avenir du Sénégal loolu moo gën a solo d'accord kon Ndella Madior a déposé les armes Ndella Madior mi ngi nuyu ñëpp Ndella Madior mi ngi baalu ak ñëpp ñëpp ñi nga xam ne dañuy choqué woon parce que mosuñu maa gis may xeex. xeexkat nag xeexkat laa nag waaye mosu ñu moon gis si si si si côté bi maintenant basta on, on tourne la page on tourne la page on, positif et on positif xuloo yi ñëpp gis nañ ko waaw yaay de xuloo yaay de et cetera écoute mais écoute c'est comme ça c'est ça la vie quoi maintenant yëpp et alors et ça passe quoi ça passe et puis on oublie on oublie donc les gens ont besoin d'autre chose et puis voilà d'être positive et puis voilà donc je vous tends la main moi je je vous tends ma main donc euh, voilà donc euh, képp koo xam ne danga ma soxla euh, soo ñëwee sama kër fii à Dakar je vais te recevoir il a aucun problème et puis ensemble toute cette jeunesse j'ai créé maintenant une page Facebook Femmes africaines debout ok et on compte Femmes unies Ndella Madior pour ce sera uniquement pour les femmes par contre cette page uniquement pour les femmes pour que jigéen ñi ñu dajaloo pour nekk benn défendre seen intérêt soo leen gisee tey jigéen yi bu bëri amuñu ko Sénégal ak Afrique parce que dañoo boolewul suñu booloo kenn antul leen donc je tends la main à toutes les femmes qui s'activent dans les réseaux sociaux ñu booloo nekk benn histoire yeeg yooyu on met ça derrière c'est ça le courage le courage de dire écoute stop quoi stop et on arrive à un certain stade il faut dire stop et avancer positivement moi j'ai décidé de dire stop et on avance positivement du gàcce du du tapette du dara du dul courage pour pour faire avancer les choses Donc, on avance, on avance positivement. Les gens qui veulent parler avec moi, donc euh, je suis à votre disposition. D'accord Donc, euh, je suis à votre disposition. Si vous voulez parler avec moi, bien sûr. Euh, pour certains, ça peut être compliqué. On va essayer de voir quel numéro de téléphone je vais donner. On va essayer de voir quel numéro de téléphone. J'ai tellement de numéros de téléphone que je ne connais même plus les numéros. Voilà. Donc... Euh, je pense que sur ce cet appareil qu'est-ce qu'il y a comme numéro là ban numéro téléphone ban numéro moo nekk fii je pense que ban numéro moo nekk fii encore oh là là peut-être c'est le 76 816 25 30 je crois moo nekk fii ah 76 816 25 30 je vais essayer d'épingler pour voir si c'est ça ok 76 800 816 25 30 pour participer pour participer par Facebook live vidéo ou bien par WhatsApp, par, euh, par appel voilà pour participer je pense que je suis pas sûre que suis pas sûre que numéro bii la je suis pas tellement sûre écoute peut-être c'est le numéro je suis pas tellement sûre je suis pas tellement sûre si si c'est des Tigo je pense qu'il faut faire dièse 176 je pense pour connaître le numéro de téléphone je crois j'essaie de voir si c'est le bon numéro On si c'est le bon numéro. Moïse, oui. viens m'aider un peu. Oui. Viens m'aider. Tu vas dire que je veux connaître le numéro de téléphone qui est pour cela, il faut que l'autre ça à la là sur la Donc tu, vas en Madame Cissé mm. ou bien Québec, tu dis maman veut connaître les numéros de téléphone qui sont là. Et tu le mets sur un papier, comme ça je pourrais l'indiquer, je suis pas sûre que ce soit le bon numéro. Mhm. Mais pour accepter euh, les demandes euh, de vidéo, il faut oui. ici. Les demandes de vidéo, il, faut... y a là actuellement Oui, ils ont deux personnes. qui sont. Ah oui, c'est ton numéro de téléphone, je connais pas. Tu ok donc ça donc c'est directement quoi. ah d'accord j'avais rien je connais pas d'accord. c'est toi qui sais tout, hein? C'est parfait là. Donc il y a agent en cours, il y a quelqu'un qui va me parler là. D'accord. Tiens, gis nga xale yi dañoo ñu gën a fort ci internet bi. Waaw, parce que ça bouge en dans, dans sur Facebook, ça bouge énormément. Ça bouge énormément sur Facebook. à Je pense que c'est à mon niveau parce que la Joincourt, ça prend du temps. Je pense que ça prend du temps. Envoyé par Messenger. Un jeu en cours, ça prend du temps. Oh, ça marche pas pour l'autre. On va essayer. Ok, il y a certains qui ne pourront pas participer tant qu'ils ne vont pas participer à mon audience sollicitée. Par exemple, il faut être amis, je crois. Am na ñoo xam ne mën nañu dugg am ñoo xam ne ñu mën a quoi. le volume mooy donc c'est vrai que moi j'ai tendance à parler faiblement j'ai tendance à parler faiblement mais bon le numéro de téléphone Moïse. ah non non non tu tu tu da ngay taxaw mu jox la ko ngay ni ma ko ben oui allez amène-moi mon téléphone reconnaître les numéros de téléphone les numéros qui sont dans le téléphone.